tam déménagé na si euh, au Petit Palais euh, fa nga xamni te moy zone primature ni daal di war a mën li nga xamné ne que mu wi nga xamni te mom la ko Bassirou euh, daal di alors après scandale wala kon après ciow li nga xam tam xewona fi ci hôtel li nga xamné que az az azalay tay ñu daal di suñu curseur par rapport ak li nga xamné que primature ban càngat nga ci def concrètement Ousmane Sonko bi nga xamni tam itam déplacé wu ak njabotam alors donc euh, il est le premier ministre hein. hmm. et premier ministre dafa am euh, ce qu'on appelle primature ah foofu lañ ko fofu lañ koy accueillir fofu mooy këram daanaka foofu mooy bureau fan la la comme président nous mu war a assam palais premier ministre dafa am bërëb bu ko hmm. spécifiquement moom la ñuy primature petit petit palais. non il y a pas de petit palais et de grand palais. loolu yëpp ay wax wax wax wax ci wax sabotage mais petit palais la non petit palais grand palais loolu yëpp amul solo xam lan moo am solo. Hmm. on sait que il y a une euh, comment un bâtiment qui s'appelle euh, primature hmm. local. la boo xamante ne premier ministre ku ko bëgg a gis. foofu la war dem normalement tey Ousmane Sonko boo gisee mu eh ben. déménager boo gisee mu déménager Sëñ Fallou hmm. c'est pour euh, mu mën a à l'aise mu à l'aise parce que amuñu jot parce que journal euh, ils ont une contrainte de temps effectivement ils ont une contrainte de temps que ça soit Diomaye que ça soit son premier ministre Ousmane Sonko que ça soit les ministres là ils ont une contrainte de temps hmm. ils ont la course à, la montre tu sais, pourquoi hmm. parce qu'ils ont un mandat de 5 ans pour bien faire ils ont un mandat de 5 ans pour bien faire le peuple sénégalais est un peuple exigeant. Il ne faut pas l'oublier. Le peuple sénégalais, c'est un peuple exigeant. Est-ce que nous patienter Le nombre de patience, le nombre de, de, durée, la durée de, de, cette patience-là, des durées Bakani, on ne sait pas. Donc Ousmane Sonko, Mota, Ousmane Sonko, Bassir Diomaye Faye. Donc urgence waxuma la sa irigence dañ leen war a yërëm parce que ku ne anti système on attend beaucoup de toi sëñ bi ku wootee anti système les gens attendent beaucoup de toi. Mm. am na ñoo xamante ne dañuy ne nañ leen xaar pour xool lan la ñuy lan la ñuy lan la mën. ba xam ni ñu wootee lu ñu sénégalais yi comme projet ba xam dinañ ndax dinañ ko mën y a des sénégalais comme ça hein. ñoom ils veulent que yii ñu échouer. donc ñu pour ñu ah, voilà moo ku gis Ousmane Sonko wala gis Bassirou Diomaye fay da nga ko war d'un yërëm dañ parce que yenn bi dafa dis anti système. Hmm. c'est pas la même chose ak bernard nit bo xamante dafañ ne mom il il continue le système par exemple le candidat kii euh, Amadou Ba bu ne mom c'est bu c'est comme si euh, Macky Sall moo am troisième mandat mais manam day continuer plan Sénégal émergent bi PSE. Hmm. xam nga koku yenn bi du diis nonu comme par rapport qui mm. est anti système. qui mm. est anti système moom day ñëw casser day ñëw réformer réformer d'ailleurs à la preuve on nous parle de réformes. on veut réformer OFNAC. On a proposé à Nafingom Keta de proposer donc des, réformes. On veut réformer une institution, Yuberi, l'enseignement supérieur. On veut euh, réformer cet enseignement supérieur. Mm. Réformer et réformer. Moi, tant, qu'on l'a dit, Ousmane Sonko il peut pas rester à la cité Keur Gorgui di xey suba di da fay parce que il y a des dossiers qui vont tu vas travailler jusqu'à tard dans la nuit tard dans la nuit maintenant bu que da nga liguer jusqu'à tard dans tard dans la nuit mënoo jógee fait à chaque fois 2h du matin voilà 3h du matin la question de l'insécurité en tant que premier ministre wala président de la république à chaque fois di def la navette que cité kër góor gi palais wala cité kër euh, góor gi primature mais kon xanaa deux heures du matin le lu c'est son Sonko non du le best parce que euh, premier ministre yu y arfan duñ saf duñ fa voilà voilà voilà moo tax 2h ah, du matin le lu c'est son Sonko 2 ah, deux heures du matin liggéey deux heures du matin administration du Sénégal bien sûr le président de la république et son premier ministre ils travaillent jusqu'à tard dans la nuit li ma lay wax ni li ma les administrations là les petites administrations ñoom ñooy à 16 h 17 h ou wàcc mais le président de la république. le le le le le premier ministre. eux ils travaillent jusqu'à la nuit. Hmm. tard dans la nuit même. Moi tax ma la pour mu yombal ko liggéey bi il faut que mu déménager dem primature toog fa am fa bureau am fa lépp loo xamante ne bu paree ci bureau day dem sangu dem teud parce que dem gis nañ ko mu dalal benn. Euh, c'est comme ça kep ku ko beug gis. bu bëggee mm. dalal nit. que ça soit homme d'état voilà comme que ça soit autorité. Mm. fofu ngay ñëw euh, primature ngay ñëw euh, dalal na vice président bu Sierra Leone. voilà à la primature. Mm. loolu lool moy liggéey bi non lay huiler lool moy permettre la facilité aussi de la coordination Serigne fallo parce qu'il doit coordonner à tout le temps avec le avec le président de la République mais imaginez tu regardes euh, primature par rapport au palais de la république mais de faciliter la coordination. de faciliter président bu en tant que premier ministre mu on a urgence urgence baa ngi une urgence, l'erreur que a fait Macky Sall Macky Sall était était abandonné par ses ministres. Hmm. oui oui il est Macky Sall était isolé. daa wéetoon daa palais Macky Sall pour il faut que pour mu soxla la il faut que mu soxla pour yo nga au palais mais ces ministres sen bureau yi sa au palais ministre Macky Sall sen bureau yi au palais ñi ñu ngi Almadi ñi ñu ngi Diamniadio ñi ñu ngi Cité Keur Gorgui ñi ñu ngi Mermoz ñi ñu ngi voilà sen bureau yi jegewuñu sa palais motam tax Macky Sall à un moment donné dafa wéetoon lol jàpp bopam bour parce que bo wété amoko lay xelal chaque fois de temps en temps da ngay foné ab ab bour ci ndum bu nek Sénégal c'était l'erreur fatale de Macky Sall dafa fouyel ay ministram ñu melni ni ay Mame Mbaye Niang ne ko ñu ne ko demal jam ñaajo mu ne non du dem jam ñaajo parce que dam jam ñaajo dafa sori par exemple je préfère être aux Almadies djégé sama kër des ministres qui imposent même ñom fuñu wara nek eh, l'état du Sénégal da doon fay lu cher ci ay lois bi. alors c'est clair Alpha. état du Sénégal da doon fay lu cher ci lois, ci ay bâtiments. Hmm. pour yóbbu fa ay bureaux. alors que l'état du Sénégal a des maisons a des des buildings administratifs Mamadou Dia ken occupé ko mu ngi ne ñambalang Yambalang bi du building boobu. L'État a des maisons, a des appartements, a tout. Mais pourtant, l'État paye des lois, des locations pour un bureau, un bureau ministre, un bureau directeur, un bureau On ne peut pas continuer de payer ça à Sengbi. L'État ne peut pas continuer de payer des locations pour bouffer un bureau. alors qu'on a des bâtiments, on a des maisons pour l'État du Sénégal propre à l'État du Sénégal lui-même. mais les goûts et les couleurs. parce que par caprice des ministres ministre n'y aura pas de ministres seen bopp pas bureau fu mu war Macky Sall. les et les couleurs nous on continue à payer des des des bâtiments. des immeubles pour y avoir ay bureau ministre. ils ont leur goût ils ont leur non mais arrêtez il faut arrêter ça aussi quand même ça ça ne rime pas avec le développement nous avons un plan Sénégal émergent ba ay ministres ont imposé imposer ñoom seen bureau fu ñu l'État va payer yo kay boma ma imposé en tant que ministre boma ma imposé ce bureau fou mo wara nek mané la waaw demal bu féké yo yay jël sa xaliss fay sa bureau sa location mais bu féké l'état du Sénégal moy fay l'état du Sénégal moy orienter les bureaux la fou ñu wara nek donc Sonko limu mu da fay insister pour ñi ñu gën a pour rejoindre le building. mais c'est ça c'est ça la gestion. ok parce que moom moo si jiitu. c' il faut commencer par là mu non ba paré yo nga tok ci ginnaaw yow bo woté ba paré xanaa kay yow yaay jiite ba paré ñeneen ñi gis la top la topp yow c'est ce qu'il a fait les ministres là waruñu tànn heureusement que ils ont des ministres qui coopèrent euh, Ousmane Sonko. xamoon mm. nan la défé casting euh, kérok bu muy nommer ces ministres là. Mm. mais gis nañu ay ministres yo xamante voilà. ils sont modestes quoi des ministres modestes ñoo xamante voilà de fokkul sen, sen. sen bët quoi ay euh, ministres yo xamante fo leen fo leen yobu ñu dem alors ils choisissent pas man fii laa war c'est mon bureau fii aussi fii la war a ay ministres wa xamante ne foo leen yóbbu ci àddina alors ça aussi c'est une avancée aussi avancée significative Alors, pour ñu c'est si le point enfin euh, Diomaye ordonne na waaye itam débloqué plus de 260 euh, milliards sur